xam ne sa loxo mënu fa àgg amoo leen loo ko fa àggalee ci sa loxo ni ki njàmp gi mbaa buum gi mbaa yooyu bu ci woote rek desee sa yeboo bàyyi ko loolu sa jaan wàcc na sa xëpp fa ndox rek te bàyyi sunanul xusli lii mooy sunna yi cangaay sunanu loxo ya bat an ci tàmbali wal ñaari nopp ña sunna yi cangaay ñeent la li ci ëpp nag boo xasee weesu raxas ñaari loxo yi booy tàmbali ba ci dikku jara yi mbaa fi ngay takk montar li ci des moom de ay bën bën yoo xam ne feeñul ci yaram wi ñu bëgg nga yóbbu fa ndox ni ki bu dee galax xam nga xal-xal bu gémmiñ gee bu dee sarax ko pax yi ba ka nee te itam ñëwuñu massa nopp yi bën bën nopp lañu wax xam nga bën bën nopp ci biir nga xam ne feeñul nga loqar ci ko moom it su ne la kon boo dugalee massa bën bënu nopp ak sarax ni ko ni ko muy ñett nga boole ci loxo yi booy tàmbali rek ñeent yooyu mooy suñuy cangaay man doobu xoo la soppam albat u mooy tàmbalee bi xas lixii ci raxasam al sobe sa bokk na ci nga nee cangaay nga njëkkee fu la sobe tax ci sa yaram rek nga njëkk ko dindi ba noppi tas ak wax bismillah sopp nañ booy tàmbalee sax nga wax bismillah tasmisu la si ñetteel boppam ba kasaani ki nii la maanaam sa bopp nga raxas ko ñetti dangeen bokk na ci nga nee bu fekkee sa bopp day nel wala bariwut kawar nga xam ne boo ko raxasee benn yoon sax mu daj te set kon boo yemoon ci benn doy tam bu baax waaye nga def ko yetti yoon na kon ngëneel la ñaareel ngëneel la ñetteel ngëneel la waaye nag bu sa kawar bari woon loolu ràbbaloo ba nga xam ñetti yoon yi taxul mu daj wala taxul mu set sax faaw day aajoo nga jàll bu wóor ne ndox mu jàll ba ci deru deru boobu te fépp tooy na donte juróom yoon lay doon ba juróom benn it loolu du mën a ñàkk taqdimu ahdail wudu ak jiital cëri jàpp ma maanaam sopp nañ nga bañ a yem ci sangu dong te boole ci njàpp njàpp benn benn ba tax mu ne jiital cëri njàpp ma dañoo bëgg itam gën a wóor mooy ba ci tànk yi nga raxas ko ñu borom bi saala waxoon booy njàpp njàpp benn benn ba ci tànk yi bu la neexee mujjee ko bu la neexee njëkki ko fi saasa ci njàpp mi nga njëkki ko moo gën nee nañu ci wax ji gën a wóor kon bu dee sangu niñ ko daan tegalee gannaaw boo xam dindi na sobe si ko taq ko defee day raxas sawukaay beeg buntu suuf bi te foofu mu daal di yéene bu yéenee ba noppi nag mu daal di jàpp jàpp benn benn loolu ngëneel la waaye bu sangoon kese yem ci mu doy bu naree sangu cangaay loo xam ne nag moom du ci doole jàpp te bu noppee lu ko jàpp daan may cangaay dina ko may mooy bu ko soobee mu njëkk yu tàmbalee jumbax ba ci bëti door a def la tàmbalee ca bopp ba ba ci jumbax bi door a àggale li tàmbalee ci bëti yi ba ci cati baaraam mu jublu rek mooy ba mu xasee weesu sawukaay bi laalaatu ko benn yoon rek loolu rek lañ jublu kon bu fekkee bool na ci defaat leen luy toj jàpp ah, kon mën naa doy loo jëmmi ci ngay loolu du aajowoo jàppaat bu fekkee nag laal na sawukaay mbaa defaat na luy toj jàpp nag kon bu fekkee yittiwoon naa jaamu yàlla gu am soxla woon jàpp day day jàpp balaa def loola bu fekkee nag yittiwoon jàpp fa saa sa mën naa bàyyi rek saa yu bëggee jàpp rek jàpp xillatumaa ak néewum ndox bokk na ci ngëneel yi muy jàpp muy cangaay ndox mi nga bañ koo yàq def lu yem rek ci yow bat un ak tàmbalee bi axlaa ci gën jaa kawe yaram gën jaa kawe cër cër bu nekk nga tàmbalee ko ci fa féete ko mu jëm suuf liki bu dee mbagg mi nga tàmbalee liki bu dee wetu ndeyjoor nga tàmbalee ci mbagg ma wut si bëtiwoom waaw bu dee tànk itam nga tàmbalee bëtiwoom wut si doxor yi loolu tàmbalee ci kaw cër bi jëm ci suuf daal moo gën tàmbalee suuf cër bi jëm ci kaw wa yaminu ak njëkki ak ndeyjoor kulluhuma na nga liñ jàpp ñoom ñaar lu am ndeyjoor càmmoñ nga njëkke ndeyjoor ngëneel la maanaam ne kii ñaari nopp yi nga njëkkee ba mu ndeyjoor yaari wet yi nga njëkkee ba mu ñaari tànk ñu noonu tab daw da nga tàmbalee fil xasli man nga fil xusli ci cangaay la boo defee fil xusli boo defee fil xasli nag ci raxas nga waaye mën nga ne tag daw da nga tàmbalee fil xusli ci cangaay la bi far jin ci raxas pay bi ne pay mooy sawukaay rek dana yóbbaale góor ak jigéen te fii sax di cee jublu góor su ma ko fa topp na nga fegu xan mas yi walis ak laalam bi bat nit akku ci biir teng ya aw jan bi ak fi wala wali teng ya akku fi benn la waaye da ko jël ñaari yoon boo waxee bi bat ni boole koog moom boo waxee aw jam bi boole koog moom isbohin wala baaraam man na it aw usbohin wala aw asbohin wala baaraam daa bëgg wax ne liñ gën taamu mooy bu dee tàmbulee sangu gannaaw bu dindee sobe si ko taxoon day njëkk a raxas ab sawukaayam dafa si yéene foofu jàngaay li wëlbatiku nag njàpp njàpp benn benn ba nopp wëlbati ba nopp nag moytoo laalaat sawukaay ba ci biir tengam li ci xong wala wetu tengam wala biir baaraamam li ci xong mbaa beetu baaraam yi xanaa daal bañ a def lu njàpp daal nga ne ko waaw su ma su ko defee nag mu ne suma isa masas taxoo topp ndéem laal nga ko ahit baamul minal wudoo ci jàpp ma maa la nga xam ne faal taxoo defoon nga ko maanaam su jàppoon jàpp benn benn ba àgg wëlbatiku def lu te jàpp ni ki laal sawukaay mbaa leneen day baamuwaat njàpp ma rek bu fekkee bu noppee fi saasa daa bëgg def luy laaj njàpp te bu fekkee soxlawut luy laaj njàpp bu ko neexee bàyyi rek bu bëggee jàpp door a jàpp bu nekkoon ba ci biir njàpp benn benn bi mu def lu doon jàpp itam ni ki laal sawukaay ba it ba tey noonu day tàmbaliwaat njàpp ma rek faslum li ab dog la dog boobu day wax tiim xawid na nga wootee ak tayamuma tiim min tahaarati ci laabug ndox li xaw fi durin ngir ragal lor aw xadami maayin wala ngir ñàkk am ndox yene bu fekkee danga amul ndox mbaa ndox mi nga am boo tàmbali woon tiimit ah, mu baamu ko bu fekkee danga amul ndox mbaa ndox mi nga am boo tàmbali woon jàpp mbaa nga tàmbalee sangu du mat jàpp mi du àgg mbaa cangaay bi du àgg loolu moo ñàkk ndox ñoo yemoo kon sa farata mooy tiim mbaa ndox mi am na doy na waaye dangaa ragal lor lor ji nag mooy soo jëfandikoo ndox mi mën nga cee jële tawat joo xam ne dal la woon mbaa tawat ji la daloon wér mbaa mu yokk loolu nga xam ko ci sa bopp wér wér mbaa koo xam ne ko xam faj la moo la ko wax su boobaa yëpp kon na ndox mi yow sa farata mooy tiim rek te boobaa tiim bi wecc na jàpp ak sangu farata ndax ndigal nga ko defee wasalli na nga jullee ca tiim ba fardan farata waaxidan julli jenn tiim nag moom li fee toj rek mën nga caa julli farata ju ne doonte la waaye tiim nag moom benn farata képp la mën tiim mu ne su boole ñaari farata ci benn tiim niki boo xaaree ba takkusaan te julli goo woon tisbaar te fekk sa faratee tiim da ngay tiim julli tisbaar tiim julli takkusaan muy ñaari tiim waaye doo mën a tiim benn tiim rek boole ci yaari farata mbaalu ko wa in tasil dem na nga jokk bii ca farata ja janaasatan ak tàdd baa nga ne julleeg néew wa sunnatan ak sunna yaxil la kon mu dagan nee na bu la neexee nag boo jullee farata ba noppi nag tiim ba nga tiimaloon farata ja nga jàll julli ci julli néew baa nga jàll def ci sunna niki nga tiimal gee ci safa witar mbaa nga tiimal tisbaar daal di jàll naafila ci ñaari ñaari rakka mbaa ñeent ci gannaaw tisbaar ak yu noonu kon mën ngaa tiimal farata ba noppi nag boo noppee ci farata ja tiim ba rek nga wéy daal ci julli julli naafila mbaa julli néew mbaa julli sunna ak yu noonu waaye day fekk nag nga yéene woon ko mu sës ci boole ci wala ab sart la ci wa jaasa dagan na moom tiim li naf li ñeel naafila ibtidaan ci tëb dal wala ci tàmbali daa wax ne boo doonee ku tawat ba mun laa jëfandikoo ndox mbaa nga nekk kuy tukki ba tukki bi tax nga ñàkk ndox daañu la may yow nga tiimal daañu la may nga tiimal julli gu la neex moo xam farata la moo xam naafila la amul fenn fu sàkkal aw dig naa la sañ ngaa tiimal nangam te sañoo tiimal nangam moom daal bu boobaa moom mën ngaa tiimal farata mën ngaa tiimal naafila mu des na ki nga xam ne moom mu nga fa mu dëkk te it wér na nga xam ne ñàkk ndox rek moo koy tax a waaye tukkiwut teewatut kooku la wax naa wa yastabihu dana dagan lu aji teew saxiihun ji aji wér alfarda farata te lal jumaa te waxuma julli jumaa maanaam bu fekkee wér te yaa nga fa nga dëkk ndox rek moo manqué su boobaa farata ju mënta ñàkk rek ni ki biti sibaar jotee mbaa takkusaan mbaa timis mbaa gee mbaa suba te amoo ndox da nga sañ a ko ndax loolu waaye doo sañ a jékki-jékki tiimal naafila ni ki bu fekkee baaxoo woon ngaa julli yoor yoor waaye tey ji mën la am fenn ndox te yaa ngi ci nga dëkk bu amul ndox mën koo jàpp itam wér nga boole ci kon kon yow da ngay bàyyi yoo yor tey mu raw la waaye doo ko mën tiimal bu fekkee daa nga dawalal ci subaar ci misaal ba takkusaan yaa ngi fi nga dëkk dox rek nga ñàkk dawatoo tukki woo kon tey doo mën a dawalal ci subaar ba takkusaan mën nga nag boo jullee ci subaar ñi ba takkusaan ci tiim boobu nga jàll teg ca la ngay teg ca ci subaar ba takkusaan waaye léegi moom doo sañ a jékki-jékki tiimal naafi la ba mu des nag jumaa jumaa nag moom dañ koy teqale bu fekkee jumaa ji ndox dafa amut waaw kon moom dañuy tiim julli jumaa ndax boobu ñàkk ndox a tax waaye li bëgg a wax ne kenn du tiimul jumaa nag mooy su fekkee ndox amoon na wala di mën sangu farata waaye dangaa jàpp ne boo fi nekkee di jàpp mbaa ngay sangu farata far jumaa su boobaa doo sañ a tiimal jumaa dangay jàpp rek bu la jàpp waree nga sangu sangu waree door a dem jumaa ja nag bu la jumaa ja nga far soppi ko tisbaar rek bañ jumaa ji raw la kese moom lu tax ñu may la nga tiimal jumaa te bu fekkee ndox daa manqué nag waaw su boobaa moom dañuy tiimal jumaa jooju wax moo gën a wóor foroobu ay farataam moom tiim masxu ko moo di sag kanam dafa yéex wax yéene waaye yéene jële bëgg a ci kanam moo jiitu ci faratay tiim waaye dafa njëkkee masa kanam jàppal ne sa kanam nga masa ko ba mu daj lépp loo xam boo jàpp raxas ko booy tiim war nga koo masa ba mu daj te bu sëy ji amee ras-ras wala sëy but xóot ba fenn furqee ci kanam li nanga ko nemmi ko fexe baraay ko ba mu daj wala yeddee ni ak loxo ya lil ko wax yi ba ci tikku jara wa loxo bu ci nekk nga masaa ko ba fa ngay takk jara boo dee jigéen ba ba fa ngay takk montar boo dee góor loolu mm, farata la ci tiim bi masaa ba foofa farata la nga jàll nag ba ci conca la loolu sunna la daañu ko wàññi ci sunna yi wan niyatu ak yéene ja da ko yéex a yéene dagan julli ci sa tiim bi bu fekkee amee nga janaaba nga bàyyi xel janaaba ja yéene dagan loo julli ànd ak janaaba ji boo dee tiim loolu du mën a ñàkk waaye boo amee janaaba bu noppi nag fekk mën laa sangu benn wéri bee ko waral mbaa ndox amut nga tiim tiimu koo xam ne jàpp képp ko waroon bu boobaa du doy faaw nga yéene waale janaaba ji maanaam bàyyi ko xel awlat darbatayni ak aji jëkki ñaari dóorin ya dañ waaye teg lañ ci jublu teg ci la ngay tiime day doon ñaar teg bu njëkk bi ci ngay raay kanam boobu mooy farata tegum ñaareel ba ci ngay masa loxo yi daañu ko ci sunne tax mu tudd aji jëkki ñaari dóorin ya mu jublu aji jëkki ñaari teg ya ngay teg sa loxo ci la ngay tiime kon yow jàppal ni am na masa kanam am na masa loxo yi ba ci tikku jare muy ñaar am na yéene am na teg bu njëkk bi muy ñeent tumal muwaalaatu topp toftale ga toftale mooy susale daa toll woon ci di wax naa susale boo see tàmbalee tiim ba kera ngay noppi farata la kon susale boobu bu fekkee defoo ko tàmbalee tiim war ko bàyyi sa coobare di waxtaan baa ngay jëf leneen te tiim bi agut su boobaa lépp day yàqu nga war koo tàmbaliwaat saa ngi dun ak pàkk taxura bopp laab na pàkk bu laab dañ ci jublu nga tiim ci loo xam ne yoon moo la may ndigal ci tiim ca di jubluwuñ sax suufus kese baa nga fàkk suuf sa lépp loo xam ne yoon nee na mën nga caa tiim rek pàkk bu laab la suuf nag moo ci gën moom ci lépp lu ñuy tiimee waaye mboolem xeeti xeer xeeti xeer yi muy doj yi woo ci xam ne loxo doomu aadama soppiwu ko rek moo xam doju demi la moo xam doju kew la moo xam doju carrière la yépp mënees na cee tiim mboolem xeeti mbeld yi ni ki xorom simaak yëpp fa ko yàlla sàkke ñu ko fay génnee foo ko fekkee foofa nga xam nekkul alal ju ñuy xëccoo danga danga ci a tiim foofa buñ ko indee ba mu xas soppi ko alal ñu koy xëccoo nag doo ci mën a tiimati wasluha ak jokk julli ga bi ca tiim ba bokk na ci faratay tiim bu fekkee julli la ba leneen la day aajowoo boo tiimee daal di julli fa saasa ñu susaloo waaye nanguwul seen diggante sore maanaam jàpp mi tiim bi la taxoon ngay tiim daal faaw day war a ñu sësaloo bu ñu soree rek tiim ba yàqu waxtu ak waxtu xadara woo teew na loolu nag moo ko juróom-ñetteel maanaam lu ngay day fekk waxtoom jot mëneestu tiim te fekk waxtu wa jotut doonte waxtu wi daa des ñaari minute nga tiim far ba nga noppee moom joti du tax bu baax kon yooyu amoon na ñeent fii itam nga boole ci almuwaalaatu sësale kon muy juróom ak pàkk bu laab mu juróom benn ak sësëli tiim bi ci la taxoon ñuy tiim mu juróom ñaar ak fekk waxtu la taxam ngay tiim jot muy juróom ñett aaxiri foofu mujjug waxtu wa bir raay ji ñal na aj yaakaar ñen dañoo sopp bu fekkee ne amoo ndox ci njëlbeen waxtu yi waaye yaakaar nga ne moom balaa waxtu wee jeex danga nga am ndox dañoo bëgg la gën mooy nga bañ a tiim fi saasa te nëggandiku ndox bi nga yaakaar ba xam soo amee ndox ma dal di jàpp ba bu dee sangu nga sangu su fekkee ne dem nga ba ci mujj waxtu te amoon ndox mi nga yaakaaroon nag waaw su kon nga door a tiim niki robinet yi te amoo fenn foo ñaane ndox waaye jaakaar nga ne moom ñu ngi defar bi te balaa waxtu yooyu jeex teen bi ubbi su kon li li mooy nga bañ a tiim fi bu dee tiim bu dee sangu sa maanaam nga xam ne bu la jàpp waree ba fekk sangu farata war la nga yee xam ko waxam teen dana ubbi ndéet ci ni nga ko yaakaare su mujj waxtoo jotee amoo ndox ma nag nga daal di téye ayi san aji naagu faqat dong awalu woo mooy njëlbeenam nga baa nga ne aw wala hoo dina tiim ca njëlbeenam nga aw wala hoo boo ko defee de ay maanaam yete yemmamu aw wala hoo maanaam daa wax ne bu fekkee ndox amut te yaakaaroo ko fenn jàppoon daal ba kere waxtu yu jeex danga ko fi am waaw kon kon moom nee na jël yeexe la gën mooy fi saasa nga waaw day eh, mooy mooy koy amul yaakaar kii amul yaakaar moom sooy boo fi saafara mu daal tiim julli wal mutaraddidu aji dengi dengi alwasatu mooy digg waxtu wa maanaam bu fekkee da ngay xel yaar ndax da am ndox wala doo am ndox mbaa yoon wi nga aw ndox nga ci kanam ngay nattab la nga ci àgg ci waxtu wi wala waxtu wi jeex wala déet kooku dañoo sopp nga xaar bu waxtu wa xaaj bu waxtu wa xaajee te ndox ma nga yaakaaroon nga am ko mbaa ndox ma nga nekkoon ci yoon wa nga àgg ca su boobaa nga na jëfandikoo ndox ma su fekkee nag waxtu xaaj ni waaye ndox ma nga yaakaaroon amoo ba àggoo ci ci nga bëru tiim loolu mooy liñ sopp du tee nag ki waxoon ne ko xaaral ba ci mujj waxtu wa nga bëru tiim itam bu tiimee ci njëlbeen du ko tee baax yooyu mu wax ko ne mu sàkkal la waxtu dañ koo sopp rek waaye nag mu xës na ndox moom bu tiimee itam mu daal di baax su ma xoo sunnaam ya masuhuma ñoom ñaari loxo yi la bëgg a wax lil mirfaqi ba ca conco ba bokk na ci sunnay tiim dañ ne woon la bale ci ca tibaaraam yi ba ca takk fi ngay takk jarab bu dee jigéen ba montar a rek mooy farata nga jàll na ba ca conco la ba ëmb ko tuuti sax loolu sunna la muy ci ñaari loxo yëpp wa darbatul yadayni ak tegub ñaari loxo ya lana xeetu dëggu dóoru na ñaari loxo yi waaye waxoon nañ jubluñ dóor teg rek lañ jublu dafa jublu tegub ñaareel ba nga xam ne ci ngay masaa loxo yi te bu njëkk ba ngay masaa yi kanam moom farat la woon weesu woon na ko bii nag ci ngay masaa loxo yi moo tax boole ko ñaari loxo yi moom suna la muy ñaar tartiibul akuk toftale baq ya ba des na nga toftale tiim bi maanaam njëkk masaa kanam door a masaa loxo loolu mooy tof mooy tegale tiim ndax tiim moom weesuwul kanam ak loxo waaye nag kon boo njëkkee kanam door a ñëw ci loxo yi loolu ba tey suna la ci tiim ñetti suna yi képp lu tiim am farata ya bari juróom-ñett waaye suna rek la man doogu xool li ñu soppam nag tasmiyatu moo di wax bisimilah am sopp nañ bay tiim nga wax bisimilah ba ngay tàmbali wasfun ak aw melo xam ne sant na melo yoo xam ne taamu nañ ko ci boo dee tiim mooy loxo yi boo ko dee masaa da ngay tàmbalee cati baaraam yi baamu ci conc la ba noppi nga njëkkee bitib loxo bi door a masaa biir loxo bi loolu bokk na ci li ñu sopp da ngay tàmm da njëkk masaa biti bi door a masaa biir bi fi muy bëgg wane mooy bitti bi fi des di biir bi kii tiim nag bu dee tiim bañ fàtte bu takkee montor mu tekki ko bu takkee jaaro itam mu dindi ko ndax bu doon jàpp moom jaaro ba yoon da ko may mu takk ko bu dee jàpp mën na ko bañ a toppale fa mu nekk nañ ko ko waaye bu dee tiim moom faaw da koy dindi naaqi bu foo aji firéem nag mosul lu ba booy kenn jàpp la maanaam daa yàq njàpp rek ba tey moo yàq tiim ñoo bokk leen di yàq wa yasiidu dana dolliku wujudu maa in amum ndox xabla an sàllaa ci njëkk muy julli nga dolli ci nag bu dee tiim moom bu fekkee dangaa tiim ba àgg laata ngay kàbbar nga am ndox te fekk waxtu wa yaatu nga xam mën ngaa jëfandikoo ndox ma am ci rakk waaw su boobaa tiim ba yàqu na ndax boo xasoon tàmbalee julli moom julli ga baax na ndox mi tax nga dagg ko donte waxtu wa yaatu na waaye nag su fekkee tiim nga nii waaye tàmbalee goo daal di am ndox te waxtu yaatu mën nga fee jëfandikoo ndox mi am ci rakk waaw kon boobu tiim moom yàqu na dafa am ndox baandu ci gannaaw ba yoxit kon mu baamu bu iñ ci waxtu in yëkku ndeem dafa nekk ka xaa i fi lis si di mel ni ki aj ragal sàcc nee na ñu mu leen ko wax ko ci xam ne tiimoon na gannaaw ba laata waxtu way jeex mu am ndox daañu sopp ci moom mu jëfandikoo ndox ma te baamu sopp rek la nag bu ko neexee bañ koo def bokk na ca ki nga xam ne ndox maa nga woon fee xam na fa ndox ma nekk waaye daa ragaloon ne bu ci wute ñu sàcc alalam ba amee rab yu fàdd daañu ko fàdd gannaaw ba nag bu amee jëmmi ndox moom nga xam ne moom la ragalan ay sàcc sàcc alalam bu ci jëmee ndox moom la amaat su boobaa kon daañu sopp mu jëfandikoo ndox mi te baa mu ndegam waxtoo jeexut waraa ji aj yaakaar xaddama ji jiitaloon na ci njëlbeen waxtu danga waxoon ne ki nga xam ne bi waxtu jotee amul ndox waaye yaakaar na ne balaa waxtu yooyu jeex mu am ko ñu ko newoon na nga ko yéexee bañ a tiim fi saasa ba ci mujj waxtu wa kooku nag bu fekkee daa bàyyi ndigal la daal di tiim fi saasa julli loolu sañ na ko waaye daañu sopp nag gannaaw ba bu amaatee ndox moom mu yaakaaroon te mu xëcc ca waxtu wa mu jëfandikoo ndox mu te ba amu julli ka wa zaminin wa zaminin ak aji lompañ xat xadima jot ñàkk na mënaawilan aji jottali zami nga koy maas maanaam koo xam daa tële man tawatali boppam ndox ba tax ko tiim gannaaw ba na mu gis ko ko mën andil ndox kon ba tey daañu bëgg daañu sopp mu baamu waxtu wa soo la waxee baamu ci waxtu wa xamal ne julli ko jëkk baaxoon na te it waxtu xasee jàll baamu gañ digli woon bàyyi nañ ko waxtu xasee jàll des ko baamooti kitaabu salaati lii mooy téereb julli faraidu salaati faratay julli sitta asharata fukk laa juróom benn anaam ci ni mu wàññee moom julli yi da ko wàññi muy fukk juróom benn fukk ya juróom nag moom siiw na shorotuha sartam sarta yi moom ñeent la bokkut ak farata yi gannaaw bu waxee farata yi ba lay wax nag sart yi takbiratul ihraami mooy kàbbaru njëkk wax nga xam ne ci julli gi kàbbar boobu farata la wal qiyaamu ak taxawaay ba laxaa ñeel boobu maanaam taxawaay ba ngay taxaw di wax allahu akbar moom itam farata la soo toogoon wax ko te fekk nga mën a taxaw kon du baax wa niyat ak yéene turaa mu def na ko sàkku bi mu ànd ak bi bokk na ci faratay julli yéene ji nga xam ne ñuy sart nga lëkkale ko kabar bi ngir nga bañ a jax-jaxi nag jëru ko man nga rek boo dawalee sam xel ni yéene naa julli gii bu dee gu teew moom boo ne gii rek mu doy da aajo war añeel ci turwa ki boo ne yéene naa tisbaar ba tey baax na boo ne yéene naa takkusaan ji ba gee gii mbaa nga ne yéene naa gii rek sam xel daal di wax allahu akbar mu sës ci fa saasa mën nga it boo waxee allahu bala ngaa daaneel ci akbar nga dawal yéene ci sam xel ci julli googu nga xam ne mu ngay julli waaye rek yéen jax-jax yi am na jàppandi boo dogoo ci xol bi rek yéene am na duñu sa duñu taamu na nga tudd ko ci sa làmmiñ lu may nga xam ne sam xel day jax-jax yi nga xam ne bu fekkee waxoo ko ci sa làmmiñ di jax-jax yi ba xam ne yéene nga am nit kon su boobaa ci yoonu Maalik moom daal lu may nga wax ko ci sa làmmiñ ndax dindi jax-jax ko googu faatiha ak jàng faatiha jàng faatiha faratale ci yow dong boo dee julli wala ngay jiite bu xasee am ku lay jiite nga nekk maamam kon dañu topp addis ba wax ne su ilimaan jàngee mooy sam njàng yow maamam waa Maalik ñoom loolu la ñuy topp nga xam daañu leeral ne bu sa ilimaan dee biral dañuy sopp nga wax ci suuf maanaam sunna la sax ma baamu ko kon bu sa ilimaan dee biral daañu ko leeral yow maamam wax dara bu ilimaan dee yàlla ngay wax ci suuf ndax sam xel bañ a dem ci leneen maa xiyaami ànd ak taxawaayu fatiha fatiha jàng ko ku mu doon farata ci moom xamal ne mu taxaw jàng ko ndekam mën naa taxaw itam farata la su toogoon jàng ko te fekk mën a taxaw bu baax war rukkoo ak rukkoo rukkoo mooy nga sëgg ba say loxo jege say bëti woom loolu moom bu see am rek rukkoo am na jàpp gi ngay jàpp ci say bëti woom bu dëgër nag ba noppi dij bëti woom yi dañ koo sopp rek waaye loxo yi moom bu see sëgg ba jege bëti woom yi rek rukkoo war rafa ak siggi min fu bàyyi ko ci rukkoo boo rukkooyee nga siggi siggi boobu mënta ñàkk siggi ci rukkoo ba farata la ni nga rukkooyee rek boo gaawee daal jàll ni nga sëggi rukkoo rek nga jàll te siggi woo na nga bàyyi farata maanaam ñeen def ko nag nañ sëggi woon ñu jàll rek benn yoon jotuñu siggi wa sujuud ànd ak toroxlu maanaam sujuud farata la ci julli war rafa ak siggi min fu bàyyi ci sujuud siggee ca sujjóot ba itam farata la lu yàgg-yàgg bu fekkee sujjóot bi siggeewoo doo am beneen ndax yàggaay bi tax ñu wàññi ko ñaar wasalaamu ak salmal wax gi asalaamaaleykum salaam farata la wal ba ngay waxee asalaamaaleykum la muy gàtt-gàtt nga toog ko farata la ba yàkkamtee bu jóg dem di ko wax ba nga koy wax yaa ngi jóg di dem du baax wa tartibu adaa in ak toftale ak joox fil usuusi ca farata ya wala cosaan ya maanaam toftale farata yi ci benn rakk ba asalaamaaleykum mujj ci loolu ci julli xam nga jiitu mooy yéene ak allahu akbar taxawaay ba topp ca ca sujjóot ak siggi topp ca nga tegalu benn rakk noonu nag ba asalaamaaleykum mujj ci farata la boo doon julli rukkoo mbaa njëkk a te fekk defoo la ko jiitu kon tegaloo su boobaa du baax wal i'tidaalu ak yemoo ga mutma inna mbir ma ngay aji dal bil tisaamin ànd ak taqoo i'tidaal mooy boo siggee ci rëkkoo bi dangay dellu ba jub xocc siggi kese doyut xaw siggi dangay aajowoo nga siggi ba jub xocc na nga meloon ba nga sëggagut boo siggee ci sujjóot it noonu dangay ba delluwaat ba jub xocc na nga meloon ba nga sëggagutoon cër yi mooy i'tidaal loolu farata la dal googu nag ba tey farata la dal mooy foo tollu loo yàkkamti yàkkamti fa teg ko cër yi dal su gaawee loolu bopp mën na picc muy faru nga xam ne fu mu fu mu àgg dal di jàll fa saasa néewul tekk bu néewul tekk jooju rek bàyyi na farata tekk jooju farata la ko wara a taqoo ci mboolem ponk yëpp ponk yëpp boo fa ponk boo tollu faaw nga ne tekk bu cër dal tekk googu bu amul rek yàq julli gi taabaxa topp na ma moomun ma moom bi ihraamin ci armal salaamin akum salmal dafa limaale ci farata yi bu fekkee dangaa doon maamam yaar yii nga bàyyi ba sa ilmaan def ko nga door koo def nga xam ne boo ko njëkkee def mbaa ngeen defandoo ko rek yow nga yàqule mooy allah akbar armal ak asalaamaaleykum salmal yooyu yaar moom faaw nga bàyyi ba ilmaan def ko nga door ko caa def ko waaye soo ko defandoo moom sa julli yàqu soo ko njëkkee def boo xaaliñ ko ba tey sa julli yàqu dafa xar wañu waay loolu nag ci farata yi ak iqtidaan ak roy bokk na ci faratay julli nga yéene roy ci nga bëgg a àndal ngeen julli li ci ëpp na doomi aadama moom li mu def dana ko yéene waaye dañuy bañ boo taxawalul sa julli bopp ba nekk ci biir gannaaw bu kenn ñëwul julli bi sa wet nga daal di bëgg a jàll ca noonu rek na nga julli rek faro ànd moom doo dagg googa tàmbaliwaat xanaa jékki-jékki wéy ci sa yéene ñëkk ji rek ànd moom loolu mu mënta am e aajo faaw ci sa tàmbali julli nga yéene roy ci kookee nga ànd moom ci julli kon jàppal ne yéene rey gi maanaam ànd kenn ci julli ci njëlbeen lay doon kazaalika ni al imaamu ilimaan fii xaw fin ci julli ragal wa jam ak julli boole jumxatin ak julli jumaa mustaxlafin ak kuñu wuutal man nga ne ba tey ak julli wuutal daa wax ne am na yeenti julli yoo xam ne boo dee jiite faaw nga bàyyi xel ci jiite gi nga jiite mooy da yéene jiit ga doomu aadama sax yée néewaana mu ànd ak sagoom te def dara te yéenewu ko waaye daal na nga teewlu ne yaa ngi jiite ba ci jëkk mooy salaatul xaw fi julli ragal na nga ko jàngee ci risaala ak la koy waral am nañ koy defee ilimaan ji koy jiite faaw mu noonu ilimaan dana aajowoo mu teewlu yéene jiit ga ak julli jumaa julli jumaa noonu la ka koy jiite faaw na teewlu yéene jiite ga ak bu fekkee ilimaan dafa am ngànt daal daal lay wuutal yow keneen ngir kooku àggale julli gi kookee nga xam ne mooy wuutu nga njëkkan jiite faaw na teewlu yéene ji ndax soppiku na bàyyi ko ci maamun ñëw ci ilimaan sartuha sartam moom julli al istiqbaalu moo di jublu xibla ab sart mooy loo xam ne mën naa bañ doon ca jëmmi mbir ma te du tee mu bokk ca sart ya koy taxa wér mbaa mu koy taxa war jublu xibla nag bokk na ci sart julli maanaam boo nekkee màkk mbaa la ko wër nga jublu jëmmi kaaba gi boo nekkee nag foo xam ne du Màkka du la ko wër wet ga kaaba ga féete rek nga julli jëm ca tuxurul xabasi ak laabu xabas laabu xabas mooy nga bañ a julliwaale sobe ci sa yaram baa ci say sër baa fa ngay jullee ndegam mën naa ñàkk bu fekkee day ngànt nag mën laa taboog sobe si baa da nga koo fàtte ba julliwaale sobe si moom julli ko baax na dañuy sopp rek nga baam ko ci waxtu wa boo mënee tàggoog sobe sax wa satru awratin ak suturaal awra suturaal awra mooy daañu ko wax léegi li awra ci góor mbaa jigéen faaw da koy sàng bu fekkee sangu awra ji ci sa coobare tey ko te mën koo sangu kon julli ji du baax faaw nga baamu ko wa tuhurul xadas ak laabug xadas laabug xadas mooy nga amee njàpp bu fekkee mën laa jàpp ndax ndox daa amut mbaa da nga am ngànt ni ki wéradi mbaa waxtu waa xat kon nga tiim tiim daal di koy wecc bu la sangu waree itam ni ci sangu farata nga daal di koy def yooyu mooy laabug xadas kooku nag moom fàtte du ko tax a jag tëli rek koy tax a jag waaye boo ko fàttee dong moom moo tax mën naa bi zikri ànd ak fàttaliku wal qudrati ak man fii xëyril axiri ci kul aju mujj yi doxurul xadas moom nañ ci sarf nga fàttaliku ko baa dara moom boo ko fàtte woon tam ba julli ni ko jàppoo du tax julli nga baax waaye yoo ko jiitu nag moom boo ko fàtte woon mbaa nga tëli ko rek mu daal lay wàcc niki boo fàtte woon bu julliwaale sobe julli nga baax na boo fàtte woon bu sangoo sa awra gannaaw ba nga sëlmale nga door ko yegg julli nga baax na yëpp dañuy sopp rek ko baamu waaye ni ma ko waxee nag boo fàtte woon a jàpp julli ba noppi door fàttaliku ne jàpp woon du tax julli nga baax